أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا لقن لساني واحلل منه العقد واجعله شاكرا وذاكرا أبدا wajal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa xalbi arshida mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu waat bu baax te di leen ziyaara di leen tatagal di leen ñaanal te di sàkku ci yéen ñaan bu baax a baax di ñëwaat tey rek di woyal ak yéen ci suñu bind yi nga xam ne moom lañ baaxoo amal ak yéen ci ay bis bu jot ci téereb sëriñ bi radiallahu anhu bi nga xam ne moom la tudde nahju xabail xaaj ñu taxawoon ci suñu bindu keroog ci sara bi nga xam ne moom la doon sara di wax ci lu jëm ci wàllu ay teggin sa diggante ak boo bokkee ab jataay ak ku la mag ñi nga xam ne noonu nga war a dunde ak moom bu caloor amee ak bu caloor amul yépp kon yooyu yu ñu war a bàyyi xel la bu baax a baax a baax ñi ngi taxawoon fi muy wax ne qul lil muminina yaxuddu min absaarihim wa ilayhi ashaara bi xawlihi na suñu borom bi subhaanahu wa taala moo wax ne yow yonente bi alayhi salaatu wassalaam waxal jullit ñi waxal way gëm ñi ñuy damm seenu gis maanaam ñuy wàcce seenu gis te ci loolu nga xam ne moom la suñu borom wax ci la shaayir bi moom lay junj ci bayit yi nga xam ne moom la ñu bëgg ànd ak yéen mu ne wala tukassir bul baril wala takun bul nekk mukassiral tifaati di baril ab geesu min gayri xaajatin ci lu amul aajo ilal jihaati jëm ca wàll ya boroom bayit yooyu ne na bul nekk mukk di baril ab geesu ci loo amul aajo maanaam fu ne nga fay wëndeel say bët di xool te li ngay xool amul benn njariñ amul benn aajo bu tax nga koy xool ne na loolu de bur ko baril mukk nanga ko maytandiku bu baax a baax a baax ndax ne na fa innahu naka loolu kat muy baril ab geesu fu ne nga fay xool di wëndeel say bët fu ne nga fay xool ne na loolu alaamatul jahli mandargaam réer la yabiin boog dana bir ne na baril ab geesu fu ne nga fay xool di wëndeel say bët te amoo ci benn aajo bu tax nga koy def ne na loolu dafa bokk ci mandargaam réer waaye nit ki war na koo moytandiku bu baax a baax mu ne wa fi kitaabillahi nekk na ci téereb yàlla bi xul waxal lil muminina ñeel jullit ñi nee na nekk na ci téereb yàlla bi suñu borom bi subhanahu wa taala digal yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko waxal jullit ñi mooy aaya boobu nga xam ne moom lañ jàng léegi ci ginnaaw mooy xul lil muminina yaxuddu min absaarihim wa yaxfazu furujahum ila axiril aaya mu ne fakkun na nga nekk li amri zil jalaali na nga nekk mumtasiran di aji jëfandikoo li amri zil wara ñeel ndigalul suñu boroom bi subhaanahu wa taala mi nga xam ne moom moo bind mbindeef yi is ngir jaa a dikk na fil xadis ci xadis anna rajula anna rajula naka waay nena na nga nekk di jëfandikoo li nga xam ne mooy ndiggal yi nga xam ne moom la suñu borom bi subhanahu wa taala joxe waaye na nga moytandiku bu baax tere yi nga xam ne moom la suñu borom bi subhanahu wa taala tere mu wax ne ñëw na ci xadis anna rajula anna rajula naka benn waay muy benn genn góor dina ko andi ci sara bi incha allah leeral ko waxaala wax na xidaman ci lu jiitu sha'irun ab sha'ir wa innaka wa innaka fala takun bul nekk mu jiilan ngay aji wëndeel tarfaka sa gis dëxran ci jenn jamono na ci lu jiitu de ab sha'ir waxoon na ne wa innaka wa innaka dina ko andi ci way yi nga xam ne mooy ñëw ci kanam ba tey mu ne bul nekk mukk di wëndeel sa gis maanaam foo toog rek di wiir wiiri xool ndeyjoor xool càmmoñ xool penku xool saw yooyu yëpp nañ ko wattandiku bu baax a baax ndax xool boo xam ne dafa bari te amul benn njariñ mën naa dem ba jural nit ki ay ay bàkkaar kon nit ki su fekkee ne amul lenn lu lu mu aajowoo lu tax muy xool fu ne na yemale ab gisam bu baax ndax amaana mu xool bëtam tege ci loo xam ne lu araam la loo xam ne suñu borom subhaanahu wa taala daf koy daf koy tere mu ne yawan yi li mu jublu ci wax jooju nga xam ne moom la doon wax annaka naka yow waajibun aji war la alayka ci yow an tamtasila ngay jëfandikoo maa la nga xam ne amaraka digal na la bihi ci moom rabbu ko sa borom nee na dafa war ci nit ki li nga xam ne moom la suñu borom bi subhaanahu wa taala digal ko mu jëfe ko comme ni nga xam ne noonu la ko ko suñu borom bi subhaanahu wa taala digal min raddil basar ci damm ak gis maanaam ci téye sab gis ci bañ a wëndeel say bët fu ne mu fay xool kon nit ki loolu suñu borom bi subhaanahu wa taala moom moo ko digal te daf koo war di jëfandikoo bu baax a baax ndax ndigalal suñu borom la mu ne li anna fi lxadis naka nekk na ci xadis anna rasulallahi naka yonente bi yàlla bi salla yàlla na doole xiiwal allahu yàlla alayhi te moom wasallama te mu musal ko xaala wax na nee na yonente bi yàlla bi subhaanahu wa taala wax na ci xadis ne inna rajula mooy la mu la doon junj ca bay dee ca kaw inna rajula naka waay la yanzuru dana xool an nazrata xool boo xam ne yan xalu dana yàqoo bihaa ca xool boobee xalbahu ab xolam kama yan xalu ni ko mu yàqoo al adimu ab der fit di baaxi fi sebej ga maanaam suñ ko dabb ko laayen tafa du jariñu bihi ca moom abadan ba faw nee na yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax na ne nit day dina xool ab xool bu bari boo xam ne dana ca xool ba ab xool ay ay ay bëtam yàqoo ca wala mu xool ca ba ab xolam yàqoo ca nga xam ne li tax ab xolam di ca yàqoo mooy daf cay jële ay bàkkaar bu dem ba bàkkaar yooyu mën na koo jural dootu ko faale bu ko defee loolu mën naa yàq ab xolam kon nit ki war nay moytandiku bu baax a baax xool boo xam ne amul njariñ waaye way war nay moytandiku lépp loo xam ne lu araam la mu cay damm ak gisam ba ak gisam du ca du ca yegg ndax nit ki su fekkee ne miin naa xool lu lu ñuy aaye ci ay bëtam bu yàggee loolee mën naa dem ba jural ko du ko faaleeti du ko defeti muy dara te bu boobaa loolu mën naa dem ba jeexit def ay jeexit ci moom waaye yàq li nga xam ne moo di moo di ab xolam mu ne waxaala wax na ashairu waykat ba wa innaka wa innaka damu la waxoon ci kaw moom lay andi foofu mu ne wa innaka naka yow in arsalta ndeem yónni nga wala ndeem boyal nga tarfaka sa gis raa idan muy aji wëndeelu li xal bi ka ñeer sa xol yow man benn bis ataxabat ka sonal nga almanaziru gis ya wala xool ya nee na saa boo yónnee sa xool day sànni ko rek muy wëndeelu ànd ak sa xol fu ne mu fay xool nee na bu boobaa na nga xam ne sonal nga sa sonal nga sa bopp bu baax a baax waaye sonal nga sa sa gis bu baax a baax ndax li tax sonal nga sa gis mooy amaana nga xool ba gis loo xam ne lu araam la amaana nga xool ba gis loo xam ne neexu la te doo ci doo ci mën dara kon nit ki nay fexey di gàttal ak gisam nay fexey di damm ay ay ay ak xoolam di ko yemale waaye bu mu jël ay bëtam rek fu ko neex mu mu sànni ko mu ne raayta kon nga gis allazi la nga xam ne laakullahu déet léppam anta xaadirun anta xaadirun anta yow xaadirun ngay aji attan nee na su fekkee ne loolu nga def sax man nga xam ne nit ki moom même bu sànni woon ab gisam fu ne mënta gis lépp kon la gën mooy sagam mënoo gis lépp nag bu boobaa na nga yemale sab gis rek fa nga xam ne foofu nga ko war a yemale moo tax mu ne raayta kon nga gis allazi la nga xam ne laa kullahu déet léppam anta yow xaadirun ngay aji attan alayhi ca moom wala an baadihi du caagee ne lennam wala anta du caage ne yow saabirun ngay aji mu muñ an baadi bi walif len kon nit ki sagam boo xoolee lépp mënoo koo muñ man ngaa xool ba gis loo xam ne saytaane daf la caa jiitu nga continuer di ko xool na nga fexe kon damm sa gis ba loolee du ko xool moo tax mu ne wala anta du caagee ne yow saabiru day aji muñ an baadi bi walif len kon boo gisee lépp tamit man ngaa gis lépp waaye gis bi ngay xool di wëndeel sa gis di xool di xool di xool man nga caa gis ba gis loo xam ne saytaane dana la ca man ba doo mën a doo ci mën a aar sa bopp waaye da ngay continuer rek di di di ko xool te xool boobu mën na laa jural ay ay bàkkaar mën na laa jural ay ay ñaawteef yu bëree bëree bëri waxaala wax na axaru keneen maanaam beneen waykat wax na ne laysa sujaaw déet jàmbaar allazi ka nga xam ne yax nii dana aar xawaarisuhu ay gawaram yawma tiaani bisub dëbbante ba isaamal xarbu ndeem xare ba tas taaylo ma ngay tàkk shaayir bi de dafa wax ne jàmbaar bu koo xam ne su xare amee wala su xeex amee mu mën a aar ay gawaram ba kenn du leen mën a rey mu mën a aar armeem ba kenn du mën a egg ci ñoom mu mën a xeex ba gañe armée bi muy jàkkaarloo te kenn du dee ci ñoom kooku de nee na du du jàmbaar kon war nañ koo laaj kan mooy jàmbaar moo tax mu ne laakin na waaye man jàmbaar dëgg-dëgg man mooy ka nga xam ne gadda damm na tarfan ndëggu tarafan ak gis aw sana wala mu leem xadaman ndëggu anil maasi ci ay mooy fa zaaka kooke alfarisu mooy gawar ga albatalu mooy jàmbaar ga nee na kii jàmbaar dëgg-dëgg mooy ki nga xam ne damm na ab gisam fexey na ba damm ab gisam fexey na ba yemale ab gisam ba du ci xool lu arab waaye fexey na ba lem ab tànkam maanaam gàttal na ab tànkam ba du ci doxi lenn loo xam ne ñaawteef la waaye du ci mooy suñu borom bi subhanahu wa taala nee na kookee mooy gawar kookee mooy jàmbaar waaye ki nga xam ne mooy xare jàkkaarloog ay noonam bi dóorante balak yooyu mën nañ koo tudde jàmbaar waaye moom ne na dëgg-dëgg kii jàmbaar moom mooy ki nga xam ne fexey na ba tee ab tànkam ci ak mooy waaye damm ak gisam ci li nga xam ne mooy ak mooy moo tax mu ne walaatu kasir bul baril xaytu kunta foofi nekkee allahwa ay caaxaan wa daxka ak ree maa taxarrukin ànd ak ab yëngutu wala waa ak ay neen dana bul baril mukk ay caaxaan foo nekk rek di caaxaan di fo loolu bul ko baril bul baril tamit ay ree bul bul bul bul def fuñ la fekk rek nga ngay siiñ di ree déedéet boo demee bu mënta ñàkk bu loo war a ree ñëwee sax na nga bari looy muuñ ndax yonente bi alayhi salaatu wasalaam da daan da daan muuñ ndax da doon wax ci xadis ne wa wala ci bëyi di sëriñ bi radiyallahu anhu am na fu mu ko fi wax ci kanam di wax ne ree ju bari day day day day rey ab xol kon na nga niiwal say ree ndax boo niiwalee say ree suñu borom subhanahu wa taala gërëm la kon yonente bi alayhi salaatu wasalaam daawul ree sax di xàqataay waaye da daan muuñ rek su soo su nit defaan loo xam ne jar na mu war jaaree sax day muuñ waaye daanaka pour nga gis bëñam du du du du yomb kon loolu li muy tegtale mooy nit ki wërta baril ay ay caaxaan waaye wërta nekk fu mu nekk di reetaan di xàqataay di caaxaan yooyu nit ki war na ko moytandiku bu baax a baax mu ne wal iqraaba ak baj-baji tamit nit ki war na koo moytandiku mooy boo toogee rek fu ne nga jikkee di awale fa loolu nit ki na ko moytandiku bu baax a baax wat tataawulu ak yuqamtiku ilaa tatalluin jëm ci yuqu ala xafiyin ci lu nëbbu musjala lu man di doon nee na na nga moytandiku tamit maanaam di yuqamtiku ngir gis loo xam ne dañ koo nëbbu maanaam mbir moo xam ne dañ koo nëbbu bañ ku ko xool nga yuqamtiku ngir di ko gis loolu nit ki na ko moytandiku bu baax a baax ndax dafa dàqonte ak ay teggin kon boo duggee ci néegub jàmbur na nga fexey ba loo yooyu yëpp na nga ko jëfandikoo na nga damm sa gis waaye na nga fexey bu dul yuqamtiku ngir gis lenn loo xam ne daf koo denc dugg ci néegub jàmbur fu ne nga yónnee fa say bët ngir bëgg a xam la fa nekk loolu bokkut ci ay teggin nit ki war na koo sàmmonte bu baax a baax a baax kon nit ki na fexe ba bu toogee toog toogin wu dal waaye na fexe ba bu mu yokkantu mukk di bëgg gis loo xam ne dañ ko koy nëbbu loolu bokkut ci ay teggi moo tax mu ne fa innahu naka lool de alaamatu tay si mandargaam tooy la badaa ba feeñ na waxi fatul aqali ak woyofum xel maanaam ñàkkum xel li man taawadaa ci képp koo xam ne tàmm ko kon képp koo xam ne tàmm nga lool na nga xam ne loolu mandargaam tooy la waaye mandargaam gàttum xel la waaye mandargaam dese la ndax li nga xam ne moom la la nit ki di nëbbu war ngaa fexe ba bañ koo xool même boo ko gisee sax man nga ko won ne gisuma ko waaye bul yokkantiku mukk di xool loo xam ne wóor dañ la koy nëbbu wala waroo koo xool kon ñu ngi tuub di jégalu bu baax di wàcce foofu suñu kàddu di wax ne in uridu illa al islah ma stata'tu wa ma tawfiqi illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu